li si yéenekaay yi ak Mouhamadou Biteye dal leen ak jàmm bu ndox tuuloo an bàq ci des wolof njaay ko wax wal fajiri yéen kaay nañu waaye Moustapha Jaxate moom dafa bëgg rek ñu a ba mu jaral ko mu taxaw rek maa ngi gàddu nag pusoom fas yéene rek ñaw diggante yi ci biir APR ma moo tax nag mu xàll yoon yu mu bëgg jaar rek ba am ndam nag ci li mu nësër su ko defee militant APR yi nag bàyyi xaxarante bi ak nag xëccoo toogu yi sunu naataango Charles Gaye ki jénne député Jibril moom dafa mel ni rek ku yàkkamti woon li daal Moustapha Diakhaté ba mu nag mën ko booleek yoon of nag ak cré lay sàkku nag ñu lijjanti rek fu mu jëlee alalam ndekat moom bir na ko ne alal ji Moustapha Diakhaté yor daal da ko rawale rek bi muy jiite nag mbootaayu député yi fare ci nguur gi Sud Quotidien ñu lii lépp moom moo jur nag tey ji waa g di yëngu-yëngal journal bi nañu gannaaw rek ba ñu amalee nag débrayage maanaam jàngale Tidiane ñoom ñëpp nag bokk wàcc ci mbedd mi ngir rek ñu jox leen nag li ñuy sàkkoo Sud nañu seen dox njaxtu bi day am nañu ci ndam ndekat mbooloo ma bari woon nañu moom moo tax sax day Macky Sall moom mi ngi sëkkatal ay jëwriñam ngir rek ñu gaaw nag ci càkkuteefu jàngalekat yi saafara ko te ci ndajem jëwriñam mu doon amal day la ko sàkkoo ci ñoom la Soleil yéen nañu njiit réew mi day yemul ci foofu kese nag ca ndajem jëwriñ ya ndekat a téeméer ak juróom-ñett fukk réew la waaye Sénégal moom moo jël juróom benn fukk ak juróom benn la place bi journal bi nañu li day wane ne rek ger gi moom wàññeekoogul ba tey ci réewum Sénégal loolu nag moom moo ko bàyyi rek foofee ñu dippee nag jaune rouge ci wàllu ger observateur nañu Sénégal day foofu la des ba tey nag donte day mi ngi ciy def ay jéego journal bi nañu waa Transparency International day ñoom ñoo génnee rapport bi ni mel Brahim Seck doomam yiy football bitim réew day di Salif Sané nag du mun a bokk rek ci ñaari jongante gaynde yi ak Guinée Bissau bi ñeel rek ñetteel ak ñeenteelu bëccëgu éliminatoire Coupe d'Afrique ndax ndorteel weeru mars day ci lay mën a duggaat ci terrain bi journal bi nañu dafa am gaañu-gaañu ci genou bi ci weeru novembre ba tey moom moo ko juraloon sax fekkeewul ñaari jongante gaynde yu mujj yi fi mu mujjee moom Mbaye Ndiaye yi ci nguurug Macky Sall gi rek meelu parcelle ba woon dañ koo tegee ne leen ni tegee rek te mu waroon a am lu rëy nag ci nguurug Sénégal moom Mbaye Ndiaye may laaj rek ana lan moo waral rek ñu tegee ko ne leen ni tege te kenn déggu ko mu wax mbaa mu kaas